nga wër ñëpp seen discours dafa des lu bëri ci côté yu nekk parce que tey lii waaye askan yooyu def waa Benno Bokk Yaakaar ñoo leen ci dugal parce que bëri na ay situation yu xew yoo xamante ne tey man bi ma njëkkee gis affaire u viol par rapport ak Ousmane Sonko dem naa télé ma ne président bi su ma ko jegoon dama naan ko lii arrêté ko parce que boobu da ngay xool comme li may wax dëkk bi fu muy dem nga xam ne dafa am réalité yu bëri yoo xamante ni mooy waral nit kooku noonu nga xam ne mooy Ousmane Sonko am na foo xam ne soo fa duggee ak moom vous mettez en péril notre sécurité mais lii dafa am ay bànqaas yu amul ci suñu état yi moo tax loolu am. mais boo nee bi nga gisee ñuy dugg ci affaire viol bi. Mhm. donc yow da nga jàpp ne da nga jàpp ne euh, lu ñu orienté ci Ousmane Sonko la. ce n'est pas comme le disent souvent les les les les membres du du de la de la majorité présidentielle la citoyenne Adji Sarr qui porte plainte contre le citoyen Ousmane Sonko da nga jàpp ne c'est une fabrication. boo ko loolu boo ko defee rek état dafa am lu muy tàll loolu la ñuy wax couloir de la justice c'est-à-dire yow mi nga xam yow yaa jug di ko song day xool yow la kan yow la kan ci. lan moo tax nga xëy bëgg songu état boobu ak potentiellement kan moo mën a nekk sa ginnaaw donc lii état yi fa mu xool ko amul lenn lu ñu teg Ousmane Sonko lu ñu tegul kuy politique bëgg nguur amul sauf que li ma doon wax sànq dëkk bi day dox parce que yow ni nga nekkee mbindeef moo mën la xool mais Sénégal noonu la nekkee mbindeef aussi nga mën ko xool ak lépp li ko composé donc dafa am loo xamante ni comme li li ma doon wax naan 2022 dafa am lu mënul woon nekk luy nekk lu ñu fi mu musul woon yaakaar lu fi nekk mooy loolu. donc affaire u viol boobu. Mhm. yow jàpp nga ne erreur la boo xam ne Benno Bokk Yaakaar ñoo ci dugal état. man de dama jàpp ne. Mhm. waroon nañ ko topp ci lu nekk ba mu des loolu. même bu fekkee ne sax xëy na moom dem na fa parce que am na ci responsabilité dama toog benn plateau kenn ne Ousmane Sonko joue à un jeu très dangereux où il est extrêmement naïf parce que yow mënoo dem tamit ba à une élection présidentielle nga jël nekk député des millions de Sénégalais gëm sa ngay def yenn affaire loolu mënul nekk. ngay def yenn. maanaam tey moom moo génn mu dem Sweet Beauté loolu waru ko def amul lenn lu ñuy fu ñuy jaar ba justifier loolu il na devait pas faire ça parce que dafa dem ba toll foo xamante ne loolu waratu ko voilà léegi nag bi mu ko defee soo gisee ma ne la Macky Sall su ma ko jegoon dama koy ne bul laal li parce que Ousmane Sonko dafa am lu bëri loo xamante ni daf ko composé ay mbir yu bëri yoo xamante ni am na loo xam ne mënuñu ko wax télé mais ñun xam nañ ko soo gisee ma lay wax sànq ay dimension